waaw tey nag moom bu ñu xëyee am nañu lu ñu metti looloo lool mm. ak lu ñu bett ndax dëgg-dëgg déggoon nañ fii euh, euh, feebaru Ousmane Tanor mais ñu woon ne yegg na ci bii dayoo vraiment mu nekk mbetteel bu mag ñu ngi vraiment di jaale famille di jaale président de la république mm. di jaale coalition benn Bokk Yaakaar di jaale famille politique di ko jaale administration di ko jaale ñëpp ñoo xamee ni que Sénégalais parce que Ousmane Sénégal yëpp ñoo ko bokk hmm. ni ma ko waxee léegi moom li tax Sénégal yëpp moo ko bokk jafe na ci homme politique yi koo xamee ni que nekk nga ci pouvoir jóge ci pouvoir dem ci opposition di opposé wu républicainement jóge ca ñëw partage pouvoir te yëpp benn changement nekkul ci yow kon nag Ousmane Tanor Dieng dafa tra traversé li nga xam ne que moom mooy vie politique bi hmm. man nag sama relation ak moom sama mag la woon suma xarit la woon hmm. maa ngi lay wax nii ci rajo bi léegi Alaaji bu ma amee rajo hmm. ci conseil yu Ousmane Tanor Dieng la jóge dama dem benn bés seeti ko mu ne ma rafetlu naa sa kàddu ak sa ni ngay ni ngay taxawee il faut que nga wut rajo di ci wax ma ne ko ah grand man toujours dans laa koy woowee ma ne ko grand dinaa wut rajo waaye du ma ci wax professionnel yi laa jël wax. bi may dem si sama première tournée africaine. du Diouf bindal ma ay lettres boole ma ay nawleem fépp ci fu ma dem. Hmm. ci la rencontré Thomas Sankara la rencontré Séni Kounthié Mathieu keneeku ak yeneen i président yoo xam ne dama leen rencontré ci tournée boobu ma demoon. Hmm. ba may laata dem ba may jox lettres yi Ousmane Tanor moo nekkoon. Euh, conseil diplomatique Abdou Diouf. dafa toog ak man waxtu. wax ma ni may comporté woo ne ma lettre bi boo xasee yore yaa ngi dox doxu Sénégal donc kon man koo xam ni la que toujours fu ma mës a tase ak moom lépp lu ma nekk dina ma ci encouragé lépp lu mu xalaat te nit dëgg la woon. Mm. lu mu xalaat daf la koy wax. vraiment Sénégal perte na ku mag. Mm.